saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa waa kër tafaatin ci seen combat bay dox seen diggante ak Boy Niang 2 gannaaw ba waa kër Boy Niang 2 génnee wax ci bile combat Tapha Kandji ne Boy Niang 2 bu tafaatin daan ko képp la ci jublu noonee la mbay ndeewaan bu tafaatin def moom it génn daal di dànkaafu Boy Niang 2 lam fa xam ne mooy làmb ji ba làmb ji daj arène beeg mbër yi ca nekk Sénégal wërngal këpp amul menn mbër mu ñemee taxaw ak tafaatin face à di xeex ak moom mbër mu ci am fit arbitre ko ci xeex ngeen corps xeex ci côté technique ñoom wóolu nañ seen mbër bu baax tafaatin amul lenn lu muy tiit amul lenn lu muy ragal ci adversaire am carrière la am bu muy défendre te incha allah dana ko défendre ñiy wax naan tafaatin Boy Niang 2 risque la ci tafaatin dañoo xamut làmb Boy Niang 2 ku ko xam-xam ne du mbër muy attaqué combat saa yu tàngee adversaire a ko tàngal damaa bëgg ñu xippi seeni bët di xool te xam ne tafaatin mi mbër mu ñemee taxaw ak moom gisuma ko ka ñemee taxaw ak mbay guy gi ba jël am mooy mambal na noo taxawal bi lee combat mu bëri ay bari jàppoon ne mambal la dootul bëreel waaye loolee jeex na digganteem ak mbay guy gi léegi Assane Ndiaye officialisé ko bile combat promoteur ba ak manager mbër seen combat bu njëkk diggante Sa Thiès ak Garga mu ne foofu 50 50 la Sa Thiès ak Garga kenn mënu ci sa morom ku ci gën a pare rek yaa moom làmb ji Boy Niang 2 ak tafaatin mu ne Boy Niang 2 mooy challenger ba rax ca dolli na ci côté mental ak intellectuel moo ca raw tafaatin waaye bile combat ku juum daanu diggante rëg-rëg ak guy gi loolu combat bu ouvert lay doon depuis drapeau chef de l'état ba ca mbuur ñaari mbëri ñu ngi tëkkuwante léegi taxaw na dana neex dana yëngu diggante Eumeu Sène ak Bombardier mu ne Eumeu Sène mooy favori ba gannaaw moo daanoon ca combat bu njëkk ba bii mooy doon favori bu nu jàllee ca écurie Bawol leader ma mu ngi ci fin de ba léegi amaatagul combat wulli wulli waat moom it ba mu perte ci digganteem ak Lirou Diane ci Gambie boobee combat le 15 la woon boobee ba léegi amaatagul combat moom wulli mu ngi doog a signé waat digganteem Adama Diouf pour saison bii ñu dëgmal bu dee Bour Sine moom dafa perte ci digganteem ak Eumeu Sène Junior këwél dafa match nul écurie boobee mbër ya fa assuré mooy booy ficelle booy waar mbay fëgala la joxaane buur siin ak booy fisel ba nu laajee Fallou Ngom coach ba la moo xam mooy lii bilan bu tàgga témbe la nanu yokk cere dolli ñeex riki la ngir mieux sauter saison bi ñu dëgmal ñu gën a liggéey ndax ñu am lu kawe suñu njort jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu yéene gaa bi ñu leen njort di daje ba ëllëg incha allah